amin amin bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi alkitaba walam yajal lahu iwaja allahuma irham ummata muhammadin sallallahu sallam rahmatan amatan ah, mbokk yow moom toog di seetaan taqyimu ilmi xayma xam-xam am na fi ñaari jeune homme yoo xam dara taxu leen sol seen daal lu dul ñëw fàttalante ñun ci téere yàlla bi ak njàngalam Muhammadu Rasulaay mi ñëpp bokk voilà balaa ñuy dem ci liggéey boobu dañ leen jox ñu présenté wu après ñu dem ci liggéey bi incha allah mbokk bismillah seen tóor fu ngeen di jàngee wala ci lu ngeen di yëngatu ak fu ngeen dëkk ak yu mel noonu bismillah salaamaaleykum wa rahmatullah mm-hmm. maa ngi tudd Mahmoud Touré dëkk Malika yor internat di jàngale alquran macha allah internat al nga yor mm-hmm. macha allah defoon naan Touré Touré ceeb rek lañ mën <laughs> bismillah yaa axi salaam wa barakaatu mbokk jullit ñi man maa ngi mbay Mbaye Sow dëkk Tivaouane Peulh di jàngee ci Cheikh Ibrahima Khalil Al Ibn ci Cheikh Ibrahima Khalil Al Ibn waaw ah, alhamdulilah mu kon ñaar ñoo ñoo fi ñëw tey pour fàttalante ak ñun ci njàngalem euh, alxuraan ak xadis ci alxuraan ji la ñuy commencé euh, Serigne Touré Serigne Touré doomi Sénégal yi di la déglu euh, partout dans la diaspora ak ci di réew mi lan nga yaakaar ni mën nga koo jukki ci téere yàlla bi laabire lem wala boobu nga wax loo xam da nga cee bëgg a laabire gars yi ci lu gàtt ba noppi nga joxe sa dalil nga jokk nga teg baaraam ci benn ay alhamdulilah xam naa ne li ñuy njëkk a laaya biire suñu bopp di ko biire ñëpp rek dafa am benn phénomène bu am Sénégal boo xamante ne ñu bari dañ koy def muy lu rafet nag ndax ñun Sénégalais dañoo am njort bu rafet ci yàlla mm-hmm. dangay gis nit sax day toog fi mu toog rek loo ko wax mu ne la yàlla baax na <laughs> yàlla baax na waaye olof Njaay dafa ne yàlla yàlla bay sa tool uh-huh. da ngay ki nekk ci ay bàkkaar di mooy yàlla saa su def lu naqari yàlla soo ko waxee mu ne yàlla ku bëri yërmande la mm-hmm. waaye yàlla da wax ci alquran ne inna rahmatallahi qaribum min al muhsinin mm-hmm. yàlla yërmandeem ñam gën a jege moom mooy ñi koy ñi koy ñiy rafetal ak ñi koy jaamu di jëm ci moom mm-hmm. rafet njort nag ci yàlla lu am solo la waaye rafet njort bi nag nekkul ne da rafet njort bi da ngay toog rek yàlla boo bëggee mu may la da koy ñaan dafa ne wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa ida daan falyastajibu lii wal yuminu bi laallahum yarshadun mat na leer na message bi leer na maanaam loolu lu am solo nga laa biir parce que loolu la ñuy fatalisme ko mhm. mooy ah yàlla baax na wala loolu yàlla non non bëgg nga ngay sabablu sabab voilà macha allah message boobu leer na ah, Serigne Sow te nga yëkkati baat bi nag soldat waaw te kaw gars yi dégg sa message bismillah sant barkaatu man lu may delloo dama koy fale sama mbokku jurit mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy nekk ci nuur ci bàkkaat ñu ñoom de dañoo dem fu nga toog suñu nekk li nga xam ne lu mat a bàyyi xel parce que borom mu wàcc ci alquran yi qul yaa ibadiya allazi asrafu ala laa taqnatu min rahmatillah ki nga xam ne dafa nuur ci ay bàkkaat jàpp ne moom su tuubee yàlla nangu tuubam kooku moom musi naagu ci yërmaane borom subhanahu taala comme ni ko mbokk waxee inna rahmatallahi waasiatun kon la ah. rahmatillah ah. inna laa yaxfiru zunuba jamian ah, kon yàlla bàkkaar yëpp lay jéggale kon nit ki tant que nekkul ci sukuraat rek su tuubee yàlla mhm. nga gis ku bàkkaar ba yàq ah man de su ne ne bu que yàlla du ma yàlla ne non non non bu leen découragé sama yërmande mhm. inna laa yaxfiru zunuba jamian yàlla nee na ban bàkkaar yëpp lay bàle mhm. ah, loolu kay waaw ah. donc kon bul nekk ci dara ba yaakaar ni dootoo mën am yàlla waaw loolu loolu message bu am solo découragé ci yërmande yàlla musibal mm, mm. waaw kon alxuraan di yàlla na léegi ñëw nañ ci ki yàlla yónni ci ñun ñëpp muy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yow lan yi nag nga teg benn hadis mm-hmm. mu leer nañ bismillah waaw lii du wax turé turé bi waaye wax <laughs> eh, macha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax si benn hadis mu ne ana mu ne hadisul qudsi xam nga hadis ñaari façon la xadis boo xam te ne moo ko waxal boppam mhm. waaye siqa bi yonent bi moo ko joxe yàlla ne ana inda zanne abdi bi fa ledunul abdu bi macha mhm. yàlla mun yonent bi saa salaam mu nee na man maa ngi fi sama jàmbi njortu ci man mhm. jàmbi nag lu ko soob na ko njortu ci man maanaam yow tey yonent bi saa salaam li mu wax mooy yow booy sàkk ji wërsëg yow jàpp na yow yàlla du la may soo yeggee moom mën ngaa ñàkk ah. waaye da am njort bu rafet ne man maa ngi dem di sàkk ji wërsëg waaye suñu borom dina ma wërsëgal ndax yàlla moo ne wa ma min dabatin fil ardi illa ala allahi rizquha amul dara loo xam te day dund ci kaw suuf lu dul ne borom bi subhanahu wa taala moom moo moom moo yore wërsëgam sooy ñaan yàlla it jàpp ne man su ma ñaanee yàlla yàlla daf may may waaye doo ñaan yàlla ba pare amoo yàqin ci neew lii ngay ñaan yàlla yàlla daf la koy yàlla yàlla yàlla daf la koy may ndax da yonent bi saa nee na jàmm lu mu ñaan yàlla lu dul ñaan ba dafa nekk ñaanuk mooy wala mu nekk ñaanu dog dog mbokk loolu ne borom bi a wa taala dina ko defal léegi def gi nag leer na leer na leer na <laughs> yow li nga bëgg a jàngale mooy mhm. hadis bi nee na ana inda zanni abdi bii yàlla moo ko wax de yàlla mhm. nee na yow say sama jaam boobu njort bi nga am ci man rek foofu laa lay fekk maanaam bu doon carte la foo mu coupe rek foofu laa lay fay wallaay kon nañu rafet njort ci yàlla boo ñaanee ba noppi nga gëm ni na mhm. lu dul na nga ñaan lu bon waaw waaw de yenn saa boo ñaanee lu bon sax yàlla da koy def lu baax jox la la ko macha <laughs> allah sëñ Sow waaw dégg nga sawaay dégg naa sawaay kay yow fooy génn yow ah <laughs> man damay ñëw ci ci référence ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bi nga borom santa moo ko tànneef mu moom moo gën lépp lu nga xam borom santa bind na ko mhm. ci loolu mu ngi wax ci benn xadis de kullu ummati yadxulul janna illa man aba qaalu ya rasulallah fa man ataani daxalal janna wa man asaani daxalal naar kon yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na de sama xeet ñëpp dañuy dugg aljanna lu dul ko bañ ñu ne lan mooy kii bañ mooy ki nga xamante ne mooy képp ku mu topp rek da nga dugg aljana waaye nag ku mooy da dugg safara mhm. kon mooy référence ne moom la ñu war a delloo mhm. borom sant wax mhm. kon moom mooy suñu référence ci bépp anam mais xadis bu doy waar la yonent bi saa su nee na euh, euh, ku dugg aljana ba mu des ku bañ a dugg aljana waaw saabee na nan la nit di bañ a dugg aljana <laughs> mu ne leen seesam Uh-huh. ku ma topp man Mouhamadou Rasulaay uh-huh. dugg àjjana mais uh-huh. koo xam ne nee na du ma topp ah moom moo moo moo des na ci moom <laughs> waaw waru xale yi des na ci moom loolu leer na kon de gars yi ah, mu ngoog loolu leer na nañ jeex kon mat na léegi dem naa léegi ci fiq fiq bi mooy jaamu yàlla euh, Serigne Touré am na événement boo xam ne nii mi ngi dëgmal da ngeen cee tombé sax waaye RTS ñu ngi doon di waaj pour si ñi war a dem Màkka ren euh, dem Màkka dañoo bëggoon nga wax ñu ci charia ban position la ak euh, def ga ak ñàkk gaa def ga waaw xam nga l'islam dafa am ay ay ay ay ay ay ay ay poto yoo xamante ne ñu ñoo ko muy cinq muy muy juróomi ponk juróomi rukn bi si njëkk di see moo bokk na ci seede na amul benn buur ak roy yonent bi sallallahu taxawal julli woor joxe azaka léegi nag aji màkka daa bokk si ponk yooyu benn si ponk yi nga xamante ne ponk lislaam yi la hmm. waaye nag ki mu war moom mooy man istataa ilayhi sabila ki nga xamante ne borom subhanahu wa taala may na ko yomb-yomb pour mu mën a dem aj hmm. léegi nag ñi nga xamante ne tamit ñoom it mënuñu dem aj am na ay jaamu yàlla yo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sax boo defee dina am di nga si am yoolu ku dem aji màkk waaye aj dem màkk aji farata la benn ponk la ci ponk yi nga xamante ne ci ponk lislaam yi la bokk. farata la macha allah. si boo ko mënee nag. Euh, léegi ku ko mën te defu ko ko mën. te defu. ko. Hmm. ah ki ko mën daal li ko war. lan moom mooy mu dem def ko. ki ko mën man istataa ilayhi sabila soo ko mënee. Hmm. nga dem nga dem nga dem def ko moom. ki ko mën te defu ko nag. defu ko. Hmm. lan ah xëy na mën na ko defu ko. na du si am bàkkaar de. da si da ci am bàkkaar ndax mën na ko farata la da kaa war. su ko mënee farata kay ku ko bàyyi est-ce que doo tey nga tey ko nga ne duma ko def. doo doo ko def te mën ko. waaw boobu da nga am leen te yàlla moom. Mhm. waaw bi nee na képp ku mën aj amoo benn ngante defoo ko nee na demal man pare naa ci yow. yonent bi day gedd sallallahu alayhi wasallam euh, sëriñ bi mhm. yow dañoo bëggoon nga wax ñu am na yoo xam ne nii daanaka sax alxuraan daf ñu koo xamal ki nga xam ne nii day dem di aji am na ñett yoo xam ne ni yàlla daf koo tere ci alxuraan ne ko yii moom boo ko ci defee day yàq saaj alxuraan tudd ko ñett yooyu yan. ñett ma dimbale la. Mm-hmm. laa rafasa. mu benn. Mm-hmm. amul ku dem aji. Mm-hmm. ba aj gi jeex amoo droit jaxasoog sa borom kër. sëy amoo droit sëy ak sa borom kër amoo droit sëy sa soxna muy benn mu des ñaar ñaareel de mooy yi nga xam ne dañ la koy tere mooy combien de am na yu fa nekk xaw ma dama kaa xawul jàpp daal maanaam lu ko war a waxee daal waaw yooyu dañ la koy tere nga rëbb yooyu waaw yooyu sax mais yi alxuraan tudd alxuraan moo tudd na yii ku koy def da yàq sa aj laa rafasa mooy amul sëy ba aj gi wala fusuuk amul caay-caay lépp lu xeet caay-caay c'est interdit wala ji daala amul xuloo boobu nag moo ci gën a jafe parce que nga dugg ti jeg-jeg kenn dëgg la nga bëma ko saag wala yu mel noonu ñett yooyu kuy aji nga bàyyi ko xel bul jaxasoo bul def dara luy xeet caay-caay ba noppi bul xuloo loo ci def mën na yàq saaj voilà euh, kon ku ko jàppee noonu dafa mel ni rek mën nañu dem ci deuxième tour bi parce que fiq bi la sëñ saw mi xawta jekku noonu voilà ah. deuxième fu ma jaaroon laa jaaraat téere yàlla bi sëñ Touré loo ci laa birawat gaay ji di wax ne comme li borom bi subhaanahu wa wax ci alquran ne hmm. jullit ñi am na ñoo xamante ne dañuy deem a nax yàlla hmm. yuxaadicuuna allaha eh. huwa xaadicuhum oh. dañuy jéem a nax yàlla waaye ñoom xamuñ ne seen bopp rek la ñuy nax hmm. ndax bokk na ci nax yàlla yi mooy yow heure boo soxlaaye heure boo heure boo jaaxlee rek ngay dem ci yàlla te bu la yàlla fajalee say aajo soo noppee ëllëg nga sant yàlla mais da ngay sant keneen wala mu dellu si la wala nga dellu si la nga dellu ci wa ida massal insaana durrun hmm. yàlla mu ne jaami bu ñëwee ba jaaxle daa rabbahu muniban ilayhi dañuy woo yàlla daal di wommatu jëm ci moom hmm. daa rabbahu muniban ilayhi thumma ida xawalahu nicmatan minhu nag suñ demee nag ba situation yi daal di changé <laughs> nasiya ma kaan yad'u ilayhi dañuy fàtte leen dañuy fàtte ne man yàlla man boo fi soo jaaxlee maa ngi fi soo nekkee ci jàmm maa ngi fi wa jaala lillahi andaadan li yudilla an sabili léegi nag ñu jël loolu nag ñu la sa liggéeyu ndey la wala nga dem sante ko keneen qul tamatta bi kufrika qalila yàlla mu ne la sa loolu nga def nag ci jëfi kéeféer la bokk bànneexu ci tuuti innaka min ashaabi naar yàlla ñu si yàlla musal safara ah loolu day moom wax dëgg yàlla jéem a nax yàlla na yàlla nee na seen bopp la ñuy nax. wallaay am na ture ture yi sa mbokk yi sa doom yoo <laughs> buñ soxlaa yàlla même élèves yi sax temps biñ nekkee élèves waaw bu weer def bac bu weer bac gay comme ay malaak <laughs> mais bu ñu amee bac après dañuy arrosé quoi arrosé ak soirée <laughs> arrosé ba mu tooy nag subhanallah yàlla neexul a nax si mm. suñ sow waaw dégg nga sawaay de waaw dégg naa sawaay de mm-hmm. téere moom lu mu ci mën a xam mooy parce que borom sax dafa ci Alxuraan zalika zalikal kitaabu laa rayba fii mhm. bi amul sikk téere mhm. hudan lil muttaqin njub la ñeel mhm. te téere bi dafa nekk téere bi nga xamante ne moom Alxuraan su ko borom subhaanahu wa taala te yàlla moo borom moo ci Alxuraan kitaabun anzalnaa ilaykum mubaarakun liyadabbaru ulul albaab kon téere bii de dafa nekk téere bu barkeel képp ki xam da ngay jàng Alxuraan yàlla nattoon ngay liggéey mi liggéey man dama kaa seer liggéey bi da koy mun parce que téere bi nga yénoon dafa nekk barke te téere bi dafa nekk li nga xam ne su xasee bu nekk ci yow rek daanaka yow daal sa porte yëpp day ubbeeku téere bi dafa nekk téere bu matale daal mhm. kon nga ne bi nu mu ko waxee kitaabun anzalna ilaykum mubarakun mubarakun li yadabbaru ayati wa li yatazakkara ulul albab wala mën pour ñu am xel mhm. di xalaat ci lool yow nag yaa ngi woo gaay ñu xalaat ci wax yàlla jooju mu ne téere bi dafa am barke mhm. mais li nga wax noonu gis nga élèves yi nga xam ne nii dañuy jaar ci daara ba jàng alxuraan après dem école yenn saa dañ leen di tëbal classe waaw allahu akbar waaw kon ndeketee alxuraan li ci nekk ci barke kan xamul nu mu toll mhm. loolu laalati rek yàlla barke mhm. waaw yàlla na yàlla tëbb ci barke alxuraan alhamdulilah leer na kon de eh, jarul taxaw demaat naa ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Touré mhm. bismillah yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ci benn xadis mu ne ñeent mbir a ngi ñeent jikko hmm. ku ñeent yëpp nekk ci yow moom yow mun naa feex ku mat nga hmm. arbaun man na fii kaana munafiqan xaalisa hmm. waaye nag boo ci amee benn it bu ne bu dee benn nga ci am na la leer ne am nga ci jikkoy naafeq yi nga góorgóorlu dindi ko balaa ngaa matal ñeenti bu ci njëkk mooy heure boo waxtaanee wax lu dul dëgg te Sénégal nag bëri na ñoo xamante dañu leen tiimale micro ñuy wax lu leen wóorut di wax loo xamante ne xamuñu si dara te nag booy wax da nga war a wax dëgg ñeent yi benn bi mooy wax loo wax wax wax loo xamante ne du dëgg du dëgg wóor na du dëgg waaw benn bi mooy nit woolu la nga wor ko nit wóolu la am confiance nga trahir ko waaw beneen bi mooy buñ la joxee rendez-vous nga faussé ko foo sarandi wu kon gars yi dinañ bare de. waaw <laughs> beneen bi mooy heure boo xuloowee wax lu ëpp dépassé. bàyyi wax xuloo ak nit rek. dépassé ko ci kaddu ci kaddu. mais gars yi dem na ba rendez-vous sénégalais. waaw waaw man loolu ni may merlo. pourquoi <laughs> rendez-vous sénégalais mooy ah c'est pas sérieux donc ñeent yooyu yow moom di déglu seetal ndax amo ci benn. Mhm. boo ci amee benn mooy yonent nee na loolu mandarga yi naafeq la quoi. loolu nag buñ ci am benn ñu. voilà. Euh, Serigne Sow. waaw man moom damay dellu ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. laa tazul laa tazul qadama abdi yawmal qiyaamati hatta yus'al hmm. nit ki de du ñëw yawmal qiyaam du du sekk benn jéego lu dañ kaa ñaan laaj ñeenti mbir benn moo wax an umrihi fii ma afnahu sa dund bi foo ko foo ko def sa dund bi foo ko def te dund boobu nag koy laaj mm-hmm. waan sabaabi mooy sa jeunesse foo ko foo ko def tamit mm-hmm. waan maalihi mooy sa alal wa ayni min ayni iktasabihi foo ko dépassé mm-hmm. kon alal bi jëmmi am bu am foo ko amee ndax lu dagan wala lu safaano loolu ko loolu dañ la koy laaj waaye wa ilmihi wa an ilmihi ma amila bihi kon sa xam-xam bi ndax yow yaa ngi woote kon bëri na ñuy woote ñi nga xam ne ñoom dañuy fàtte seen bopp borom subhanahu ta'muruna bin ta'muruna ta'muruna ta'muruna bil birri wa tansawna anfusakum ñoom dañuy digal nit ñi lu baax ñu fàtte seen bopp te loolu dafa nekk lu mot a bàyyi xel mhm. kon ñeent yi nii dafa nekk yi dañ koy laaj nit ki su deewee jar na bàyyi xel jar na bàyyi xel la maanaam yële yàlla dénk yëpp mooy sa dund gi ci loo ko jeexal mhm. alal ji mu la jox ci loo ko dépensé mhm. sa jeunesse ci loo ko dépensé ak sa du. Euh, euh, sa xam-xam sa xam-xam bi la yàlla jox ci lan nga ko dépense. dëgg la kon yàlla joxul la nii rek pour. déedéet mais lu mu la jox lu nekk. Mm-hmm. dana laaj ci lan nga ko jeexal ko mm-hmm. subhanallah mm-hmm. yàlla na yàlla doon dimbal yàlla yàlla yërëm yàlla jox la ay xéwalam ba nga di ko dépensé ci lu mu gërëmul moom loolu dafa dangereux ah. léegi dem nañ ci dundu sallallahu alayhi wa bii nga doon wax sànq ba léegi ay hadisam euh, Touré dundu yonent yàlla moom lan moo la ci gën a marqué quoi ak ban leçon nga ci jaxe waaw xam naa ne bokk naa ci li ma si li ma si gën a marqué mooy ne yéen tamit sax confiance bi mu amoon ci borom bi subhanahu wa xam ne yàlla foo nekk rek yàlla mu la fay mu la fay wuyu. Hmm. xam nga ba muy gàddaay di jugee Màkka bañ leen sonalee muy gàddaay jugee Màkka di dem Madina moom rasulullah dafa àndoon xaritam boobu di Aboubacar Siddiq ba ñu duggee ci xuntu yi dafa tiit Aboubacar dafa nan tey lan moo ñu fii lan moo ñu fii wutal lan moo ñu fii jàppale moo tax borom bi subhanahu wa taala ne id axrajahu alladina kafaru thaniya thnayni id huma fi lgaari id yaqulu li saaxibihi la taxzan inna allaha maana ñoom ñaar ba ñu nekkee ci xuntoo ba aboubacar tiit yonent bi saa salaam daf ko ne laa taxzan bul tiit inna allaha maana yàlla moo ngi ànd ak ñun laa taxzan inna allaha maana yàlla moo ngi ànd ak ñun loolu nag liñ ci nit ki war a jàngee mooy ne yow feeg yaa ngi nekk ci ci yoonu yàlla feeg yaa ngi nekk ci woote gi yonent bi saa salaam nekkoon borom bi subhaanahu wa moom moo moom moo lay dimbale moom moo lay alladina yuballighuuna risalati llahi yaxshana wala yaxshana ahadan illa allah wa kafa billahi hasiba kon nag boo nekkee ci li yéen bi saa saam nekkoon loolu lu lay jàngal mooy ne foo foo nekk rek borom bi subhaanahu wa taala moom la fay amul tiit amul tiit illaa tansuruhu yàlla nee nag su ngeen jàppale wu diine gi faqad nasarahu llah borom bi subhaanahu wa taala leer na leer na boppam na yow li la gën a marqué mooy ba yonent bi ànd ak Aboubacar ci xuntu sal salaa sallam radiyallahu Euh, ijra ñu génne leen màkka ñuy dem Medina. Mhm. ndeysaan bu ñëwee ba làqatu ci benn pax mhm. ba gaa ba ci buntu pax mi Aboubacar xawoon na ay waay tey tey gaa yi gis mu ne bu ragal yàlla nga ànd ak ñun confiance boobu yonent bi am ci instant boobu mhm. te gaa yi ngi nii taxaw ci buntu xuntu bi quoi loolu nga wax ni euh, nit boo nekkee ci dëgg doo tiit doo ragal ba noppi da ngay am confiance ci yàlla une leçon macha loolu leer na am na gaa xam dañoo gaaw a affolé de. so waaw yow loo ñu indil. waaw man lu ñu indil mooy maanaam yéen sallallahu alayhi wasallam dafa doon ki nga xam te maanaam mbir yëpp dafa matale ci jaamu yàlla. sallallahu muy guddi muy bëccëg. te suñu ayisa da kaa fekk muy naafli ci benn jour. bu day julli ba tànk daal di neewi. Hmm. léegi suñu ayisa nekk yow de xanaa yow jéggaluñ sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj. mu nekk afala akuna abdan sakura mhm. mhm. parce que dafa nekk li xam lu mot a xel parce que ñoom yonent moom daanaka lépp da ngaa borom bi waaye moom fekkoon tey jamono ñu tey ñun ne diw de yow de say bàkkaat yow am na noo yow da ngay waaye moom taxul bàyyeeku dafa afala akuna abdan sakura loolu tamit neex nañ ci loolu tamit loolu moo la a lu rëy la mhm. parce que keroog noonu aaya dafa wàcc daal na yonent inna fatahnaa laka fathan laka laahu maa yàlla ne euh, Jibril waxal yonent bi baal naa ko bàkkaaram yi passé ak yi ñëwagul waaw ba noppi dinaa ko ubbil màkka man de buñ ma ko waxoon na damay tegal sama tànk quoi <laughs> mais guddi googu dafa julli ba tànki neewi nga wax soxna si ko mais yow xanaa du yàlla moo la wax léegi baal na la mu ne waa mais su ma baalee nag du ma du ma du ko du ko sant waaw di sant yàlla ci julli ba tànki neewi te nee nañ ko baal nañ la lépp loolu leçon bu baax la boobu bii moom jaru taxaw yéen ñaari da ngeen a même poñ rek ñu dem ci final ba rapidement baaguma leen ci alxuraan ji kàddu yàlla gi na leer ci boppu jaami bismillah waaw xam nga yàlla dafa wax ci benn aaya ci alquran mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baleen yàlla di tagg ci alquran ne leen yéen yéen a gën ci xeet yi waaye lan moo tax ngeen gën ci xeet yi daane tamuruuna bil maarufi da ngeen di digle lu baax wa tanhawna anil munkari te ngeen di te ngeen di tere lu bon mhm. wa tuminuuna billah nag te ngeen gëm yàlla maanaam moo nañoo taggee ci leneen moo naa wax ne leneen bëri na jëf yoo xamante ne ñoo ngi koy jëf waaye moom bi ko ci ëppal solo mooy digle lu baax tey tere lu bon te gëm yàlla mooy ne gëm yàlla boobu nag mooy nga fexe ba lépp loo nga xamante ne yaa ngi koy santaane wala yaa koy digle wala yaa ngi koy tere yow nga nekk ka ca jiitu mhm. kon nag loolu dafa bokk dafa bokk ci ràññeeku gi xeet gi ràññeeku mooy ne ñun da ngay digle lu baax tey tere lu bon moo tax saar bi yàlla wax ne. waaw baax na baax na baax na yow li nga bëgg wax rek dafa leer mooy. Mhm. Euh, yàlla def ni ci alxuraan yéen. Mhm. waa kër yonent bi sala sam yéen ni waa lislaam yéen a gën ci nation yi. Mhm. mu mel dañ ko naan la ngëneel googu ci lan ñoo leen ëpp alal ñoo leen mu ne non non non parce que yéen da ngeen di tere lu bon. di digle lu baax. ba nag yéen a ngi ànd ak ngëm yàlla. te li ngeen di tere mooy lu yàlla tere lu ngeen di digle mooy lu yàlla digle. Ah, kon ndekete loolu buñ ko bàyyee est-ce que danañ gën a ti kenn léegi nag yi dafa mel dañoo démissionné dañ seetaan rek waaw loolu nag bu dee ngëneel nga amoon day day mel ni day dellu ginnaaw macha allah waaye turé bi defoon naa ne ceeb rek la woon mais <laughs> sëñ Sow waaw sëñ Sow macha allah bismillah di dellu ci alquran rek borom centre mo wax ci yonent bi qul haadihi sabili adu ila a ala basir ana wa man ittabaani mhm. yoon ne lii moom mooy sama yoon damay woote jëme ci yàlla waaye nag ma teg ko ci ala basir ci xam kon képp ki nga xam ne da ngay woote ci ci xam-xam na nga jiital la nga moom mooy xam-xam mooy jàng mm-hmm. parce que lépp looy woote da nga koy argumenté loolu maa ngi ci ba maa ngi ci ba tuum di ci bàyyi xel mooy ñi nga xam ne dañuy woote parce que li ngay woote da nga war a teg ci ay mbir yu leer nañ mm-hmm. qul haadihi sabili ad'u ila allah kon dañuy woote jëmee ci yàlla ala basira ana wa man ittabaani man ak képp ki ma topp ah, boobu aaya itam du jar di leeral mm-hmm. ni yonent bi alquran daf ko ne xul waxal mu ne yàlla lan lay wax mu ne haadihi sabili lii mooy sama yoon mhm. yoon waa ngi nii de ñu mhm. yoon wi lan la mhm. mu ne autoroute la la damay woote jëme ci yàlla waxul damay woote jëme sama bopp damay woote jëme sama nangam damay woote jëme ci yàlla ala ala basirat na teg ko ci tegtal yu leer moom la ñuy def nii xam nga sànq ba maa bu fi kenn wax waxi boppam <laughs> looy wax tegal fi ala basirat <laughs> ñu ne ndax yow rek yonent mu ne déedéet man ak képp ku ma topp yoon wi daal mooy dañuy woote jëme ci yàlla ba noppi nag teg ko ci tegtal yu leer macha allah macha allah ah vraiment sama gars yi njàngale mi neex na léegi dañ demaat nañ ci fiq léegi euh, tabaski ji ñëw na moo ko euh, ànd moo kii bi ñoo ànd xaj gi euh, sëriñ bi tabaski moom itam ndax ban men statut la am ci charia waaw tabaski ah, waaw ban atte la sunna mu akkada la sunna mu akkada mhm. waaw nekkul ne nekkul farata waaye sunna bu jege farata la. waaw boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko boo boo ci defee comme li nga ci war a def roy nga ci yonent bi sallallahu alayhi comme rendi geeg. waaw yëpp bu loo ci def sunna la da nga ciy am tuyaaba sunna bu jege farata la waaye boo ci baax yi tamit nekkul bàkkaar bu lañ bu ñu lay toppee. boo ko amee te defoo ko nag. boo amee boo amee loo rendee te rendi woo. bàyyi nga sunna bu am solo. bàyyi na solo loolu la boo amee def boo amul wàcc wàcc na la waaw. bàyyi ko mooy bàyyi nga sunna bàyyi nga sunna waaw bàyyi sunna wóorul wóorul gaa yi ku bàyyi sunna sonn waaw sëñ <laughs> Sow euh, xarum tabaski moom li ma ñu ci ñetti rek yoo xam bu nekkee ci xar mi xar mi kenn ku mën a tabaski xar yi moom benn moom dafa doon xat mot sëkk waaw mu doon waaye fekkee dafa am lu ci xaw a dagg rek maanaam kon loolu du mën a mot muy benn waaw benn tamit mooy xar bi dara dara war dara war cee dagg maanaam dara cee waru cee lii daal maanaam dafa war a xar bu xar bu mot sëkk daal. waaw loo ko wax nga ko ba pare. bu bu mot tabaski daal. bët bi warul pàtt ak. waaw génn bi warul lii ak yëpp dafa war a xar bu mot sëkk daal. Ah. ci gàttal daal maanaam. d'accord leer na. kon euh, yooyu moom mooy yi fi ñëwoon euh, dafa mel ni waxtu jot na am na yeneen yu ma bëggoon laaj mais waxtu jot na euh, yaakaar naa ni ñaari champion daal ñoo fi ñëw tey. mais dafa mel ni Touré Touré bi Touré Touré kàddu yooyu tàggoo rapidement rek. ah ñu ngi sant ñëpp di di am mbégte ci ci ci émission bi di ko xayma xam-xam la nag di wax ñëpp ne yàlla nee na ki xam ak ki xamul du ñu yem. kon na kenn ku nekk si ñun na nga gën a góorgóorlu. ci sàkku xam-xam. jërëjëf yàlla nañu si yàlla dimbale. amin mat na kon yow mi toogoon foofu yóbbaale nga sa ci parole yow mi toogoon foofu kontaan nga. ku bëgg bokk ci émission bi.